fa cinquième uh, mandat à la tête de la waaw man de ni nga ko liire laa ko liire <laughs> ni nga ko liire laa ko liire waaw ni nga ko liire laa ko liire donc euh, information bi euh, fuite na. Mhm. Euh, et quelque part aussi tamit journaliste bi ko bind dañ koy respecté. Mhm. parce que journaliste bu. bu mag la. waaw bu xarañ la si li muy def bu xarañ li muy def. mooy bu mag la rek c'est un doyen donc voilà. waaw mën na bind. Mhm. nga euh, ay nit weddi ko léegi. Mhm. mais boo toogaatee quelques jours dëgg lay ne. c'est vrai. xam nga donc euh, Bakary. Bakary Cissé wa waaw c'est un journaliste d'investigation. Mhm. boo xam ne ni. maanaam ku ku am taxawaay la en quelque sorte. si li <laughs> ah, muy def quoi football bi si monde sport bi. ku am mhm. taxawaay la si li muy def wala salut de passage ah. waaw te ensuite tamit big mhm. euh, tey euh, information bi feeñ noonu. Mhm. maanaam sax am na sax euh, loo xam ne ni yëngal na ko. parce que bo demee bu cité ay nit amna na ñoo xam ils se diront que ni est-ce que man information. waaw Augustin mën na mën na mën na ku nekk ah. parce que Bakary a cité des noms. wa amna ñu wax sax que euh avant sax li di génne. Mhm. avant li di génne ni mhm. amna lo xamné ni amna na ñoo wax ne Augustin doit doit revoir son entourage.

soo xoolee ñi xamné ne nii ñoo nekk ci ginnaaw Augustin Senghor pratiquement euh ñen ñi 4 mm-hmm. euh, ans. ñu ngi ci ginnaawam ñen ñi 6 ans wala 8 ans ñu ngi ci ginnaawam ñen ñi ils ont cheminé avec lui. c'est vrai. su comprendre nga. Mm-hmm. Euh, euh, dafa am lo xamné nak ci and and man na neex tay aussi aussi tamit mu yow nga nit Tu de responsabilité de responsabilité nga frustré frustré et pour dire que euh, Augustin doit revoir aussi son entourage parce que euh, information yi mel ni yooyu a se sentira vexés. vexé est ce que loolu rek jar na ça veut dire information bi kese jar na muy sax revoir son entourage parce que Augustin Senghor def na 4 ans 4 ans sous son air il a tout gagné on peut dire coupe du monde il la gagné hein. donc si on voyons il ne va pas euh, du euh, briguer li nga mandat aussi est-ce que nous loo chose vraie parce que en âme conscience euh, peut-être il se sent peut-être voilà déjà je vais pas dire à la retraite mais déjà il li nga fédération sénégalaise de football aussi non parce qu'il a fait 16 ans ici. xam nga xam nga tey Augustin Senghor man mën naa il est victime de son âge quoi. victime de son de son âge. de son âge. Ah. parce que il est jeune ou vieux. non il est jeune. <laughs> d'accord. <laughs> il est victime de son âge. Ah, ah. parce que Augustin. Euh... soo xoolee li tax mu euh, fédération euh, fédération ba fédération nous am ce qu'on appelle euh, le cadre de concertation des présidents de club mm -hmm. CCPC xam nga tay ñu ci bari ñu ci fédération bi tay bo leen laajoon CCPC bi fu mu sax amaana la sax wax walla nekk ñu dans les centres de décision mhm manam coow fi mu jógee ak wax ji ak nit ñi daan toog di waxtaan ci CCPC bi mm. mën na xol ci fédération bi ci si COMEX bi CCPC mm. bi bu Augustin Senghor ci bu ma juumul amu si. d'accord. parce que boobu football Sénégal ak ki la mbay Diouf ja oui mbay Diouf Dia doon Mbour Petite Côte waaw parce que Mbaye Diouf Dia moom instant bobu mu ngi woon euh, mu ngi woon douane après la jóge douane c'est le créer pour Petite Côte mais CCPC bobu c'était entre l'ancienne fédération bi xamna ne Mbaye Ndoye moo ko jiite ah ay club yoo xam ne nii ñoo nekkoon si si ku mel ni ay ay jaraaf yaakaar hmm. yes Gorée hmm ay mbuur mbuur mbuur mbuur mbuur PC douane mom mhm. mënu si won dugg parce que son président fii euh, feu Mbaye ndoy et ensuite aussi douane kep ko xam euh, problème mu tenu am na si yoo xam ne doo si dugg te am ñàkkul ay fruité mhm. ay ki ay ay frustré mu ax ax euh, ay ax assure bu Richard Toll boo xam ne Louis Lamor mom moo ko doon jiite assure Louis Lamor ben waaw d'accord xam nga li tax man ma di la wax loolu. Mm-hmm. man instant boobu man maa ngi woon yaakaar comme administratif. yaakaar bu tëngéej. yaakaar bu tëngéej bi bi devenir tey tëngéej FC. non non yaakaar. yaakaar yaakaar yaakaar instant bi mm-hmm. moo nekk euh, moo jëkk a nekk Ligue 1. Mm-hmm. ah d' accord yaakaar club bu nekk léegi mu ngi football euh, division régionale waaw avant tëngéej FC nag di am Jokkul FC noonu avant ñu créé Jokkul FC. man foofu laa nekkoon administratif. Mhm. mais comme on dit euh, ku sa dëkk euh, ku wàlliwaan dafa fekk sa dëkk tëggul léegi nag bi ñu tëggee nag ñu <laughs> créé nag euh, équipe bi ma bokk si ñi xam ne ñoo créé affaire bi si laa ñibbisee d'accord mais yaakaar instant boobu ko ñu Ibrahima Faye moo ko jiite d'accord Robert Sow moo nekk le secrétaire général. Robert Robert Sow. oui oui moo nekk le secrétaire général de de de yaakaar instant boobu ma lay wax noonu. Mhm. muy Robert Sow. Mhm. Ibou Ndiaye bu Gorée. oui Ibou Ndiaye benn. dama lay limal ay tur Ibou Ndiaye bu Gorée. Mhm. Léonard Diagne. de bu fédération te mu nekk secrétaire général fédération. ñu ñu mel ni ay daam daam euh, bu géejawaay. ak euh, quelques ay yoo xam ne nii. ay responsable administratif je veux dire quoi. d'accord Donc suñu kilifa yi biñ revenir. revenir ay mm. Ibrahima ay Wagan Diouf Wagan Diouf instant bobu le président du Wagan bobu mom la cherche d'accord Augustin Sangor, mm. instant bobu si lay Un a di président d'accord parce que euh, après euh, Augustin man quoi. Mhm. xam nga mu un dirigeant jeune. Mhm. moom instant boobu si la mhm. donc Augustin foofu la man ko CCPC. donc bi CCPC ñëwee léegi loolu am après ñu CNF euh, euh, comité normalisation du football sénégalais. d'accord CNF bi mu ñëwee ben euh, li bo xam c'était transitoire. Mhm. Augustin Senghor fofu nak nag la jóge nekk président euh, président fédération sénégalaise de football. Mhm. donc pour dire que né par rapport à sa à sa trajectoire Augustin Senghor amul mosul am manam affaire bu yomb en quelque sorte. Mhm. parce que moi bi mu nek président fédération sénégalaise de football moo moo Malick Gakou ñoom ñoo doon jàngoonte. Malick Gakou de Guédiawaye Malick de Guédiawaye mu nekkoon sax ministre du commerce. autant de autant de qui Abdoulaye Wade quoi. Les non non autant de Macky Sall oui. parce mm. que autant de Macky quoi. Mm. D'accord, ko euh, ministre du commerce. donc mon foofu le dire. Mm-hmm. donc ensuite depuis lors je dama suis nit premier mandat Il me premier mandat ba nit non non ah d'accord am na mm-hmm. pour revenir sur waaw euh, ans ba sommes mm-hmm. 4 ans donc am na loo xam ne nag bu bu. bu xewee waaw nañ ko def footu mbirum nekk. mais mënatul nekk footu mbirum nekk comme génn na ci kay. Eh, ci penc bi non non xam nga. ñooñu ñu lim seen tur. peut-être ñoom ak Augustin ñoom <laughs> ñooy def footu mbirum nekk. pour l'instant wala instant bi c'est déjà. Euh, c'est xam nga tey dafa am loo xam ne. am Augustin. Mm-hmm. mën na wax de. Mm-hmm. bu fekkee moom moo wax. Mm-hmm. mën na wax. mais fii mu waxee.

doon na xëccoo pour nekk président ligue bi. Mhm. ligue Dakar. non ligue de ligue. ligue pro ah yàlla def. Mhm. ma dem benn reportage bi ma demee reportage bi. Mhm. am nga rek journaliste da nga am ak jàmm ak ñu bëri. si biir waxtaan wi nga am ko cokkaas. waxtaan ak moom. yow sa président bi yow tàppet la la moo tax du mën a ko may. mën a pour am info. xam nga. <laughs> Eh? Memang lah. ya, lah. mu jox la information bi dana pour ramal sama président candidat la. Uh -huh. Mu mhm. ne ko yow li ngay wax ni yow wër na la mu mhm. ne mu way mais li mu wër la yow sa dang ma yab. Uh -huh. Yow ma jing yow nga waxtan na man nga laaj ma ma wax la dana sama président candidat la. Nga uh -huh. ni mu wax ndax ndax dëgg la. Mu ne ko ah bon mu ne ma wax xam nga man ma am ben ma am information bi. Oui. Légui man ma ñëw def sama papier bind ko xam nga. Uh -huh. Euh, joxe information pour dire que ne diw d'après une source bo xamné ne ni euh, bokk na si club am candidat la. d'accord man dal may nelaw ba yeewu. yeewooguma sax gisoo plainte. non plainte am <laughs> mais ku plainte mo ki la mo mo ma uyu ji rek am na argument de. Mm-hmm. ku ma plainte mo uyu ji <laughs> ba ah, ah, am na argument. xam nga léegi mu mm-hmm. woo ma ne ma diw ne ma ah, mun ne mm-hmm. pourquoi nga bind ne man candidat la. mu nekk doo candidat amul bu fekkee ne doo candidat nga jox ma sa droit de réponse bu bind ko léegi wax na yow doo candidat mhm. mu ne ma ni nga ni nga ko bindee mhm. man moomoo lii mais ko ma nekk ba léegi de mhm. tontoo boo ma de bu fekkee ne doo candidat wax ma ne doo candidat ma dindi wa ma ma rectifier ni ma ko bindee ma waxaat suma suma suma suma journal parce que instant maa ngi stade ma ne que am na boogu eh, boogu immunité pour dire que ne diw kat nee na kan nekk mhm. candidat su fekkee doo candidat mhm. wax ma ma bind ko ne yow yow doo candidat alors si candidature augustin sengor yow jàpp nga ni war na mën a briguer un cinquième xam nga loolu moom ca gël guyam la mais en tant que observateur en tant que nit en tant que journaliste sportif ba nga xam ne ni augustin ba muy ñëw fii la la fekk ah ha? de gis liggéey bi mu def ci ces gens yi est-ce que aussi tey en tant que journaliste sportif bi nga doon war nga mën a euh, jàpp ne Augustin Senghor mën na continuer te léegi fédération sénégalaise de football ba tey. waaw xam nga tey soo xoolee taxi yi si boppam. Mm-hmm. taxi yi amul fenn fuñ ñu def ne. mandat limité am na limitation de mandat. Mm-hmm. te Augustin tey su fekkee dafa bénéficier wu confiance de ses pairs. Mm. mën na fi toogaat ba l'an deux mille deux euh, deux mille trente sept même plus. Mm-hmm. bu fekkee ne il a te yàlla may ko gudd fan quoi. Mm-hmm. ak wér. bu fekkee ne loolu am na. Mm-hmm. bénéficier confiance de ses pairs. loolu mooy parce que taxi amul fenn fi ñuy wax ne Augustin ñaari mandat la wala ñetti mandat quant à nag son bilan tey je pense que ne Augustin Senghor a a tout gagné sauf la, sauf la Coupe du Monde. Oui. ak Olympique Olympiques. Olympique oui. ah, <laughs> je pense que loolu la fi gagner gul fi mu nekk nii. ah ah ah, kii ah CAN féminine à Coupe du Monde de but soccer. oui Coupe du Monde but soccer oui am waaw yooyu yooyu daal la yooyu mais fi fait wul quoi. mais bu fekkee petite catégorie bi euh, il a tout remporté ah. Sénégal gagné la fi CAN bi. ak euh, Coupe du Monde ak yooyu mhm. euh, sur ce moi je dis que euh, c'est un bilan satisfaisant hein? mais aussi tamit euh, li tax tamit euh, mu réussir lolu dafa nek tamit dans la pérennité. d'accord Manam dafa am confiance boobu. Mhm. et ensuite euh, ni mu amé tamit ay s'appelle encore qui qui quoi satisfaction am yenn performance bi. Mhm. Amna na yenn période bo xamné ni certains disaient que né mhm. Augustin dafa xam nga ñu si bëri à un moment donné doon nañu wax. Mm-hmm. même dans les plateaux. de télévisé de télévision. am na mm-hmm. ñoo xam ne ni doon nañ euh, sax sàkku sax son départ. mais ñi doon sàkku son départ peut-être c'est la population sénégalaise ñoom doon sàkku son départ mais ñi nga xam ne c'est les présidents de ligue les 14 ligues ah gis nañu biñu démé fi nga xamné né ne élection mom ak Madi Touré. Mhm. mu daal battre Madi Touré largement comme on mhm. dit parce que euh mu am 329 26 voix mhm. ci kaw ki nga xamné ne moo di Madi waaw Madi Touré mi nga am 123 euh, est-ce que lool aussi tay euh, nekul lo xamné né tay ñi nga xamné ñu ngi nek ci football bi ça veut dire président de dik ñom Madi ça veut dire Augustin lañ gëna wolu bu jiite bi nga xam ne mooy football seen football Sénégal suñu football sénégalais que euh, un personne aussi tey parce que on a entendu euh, année passée ci dernier mandat bi euh, Maître Augustin Senghor qui disait que ni du du def quatrième mandat soos bu mu waxal boppam kenn waxalu ko moom moo ko waxal boppam ñu dem ba ci cappaandaw ga moom mu ñëwaat ne day defaat. Euh, quatrième mandat parce que président Kaliphone bi ñoo ko wóolu est-ce que aussi tamit bii du demee noonu. waa xam nga tey yaa ngi wax. loo xam ne mu nekk deux deux <laughs> kii yoo xam ne bëgg naa nga ñëw si. xam nga boobu Augustin ba léegi Augustin kenn dégg ko mu def déclaration. ci cinquième mandat bi. non ci quatrième mandat bi sax. ci quatrième mandat. waaw Augustin. Augustin. kenn dégg ko mu wax si. Augustin fan la musul toog wax ne ne moom du nekk. est-ce nga parce moom masoon na wax ne. Mhm. Euh, du def deux mandats du def. du def un troisième du def un troisième mandat. oui quatre troisième mandat autant pour ma pas quatrième oui xam nga boobu mos na ko wax. oui mais les présidents euh, comme ni nga waxee parce que ñoom bi ñu nekkee Maroc. Mhm. la ñu am benn déclaration. Mhm. boo xam ne nii maam Adou Ndour. en tant que président de la Ligue. Euh, bu ligue de football bu bu Fatick. oui ñoom ñoo def déclaration pour dire que ne. Mhm. il souhaitait à ce que. Mhm. Augustin mën a am un un quatrième mandat. parce que boobu seen bëgg-bëgg c'était à ce que mu nekk le président de de la CAF. de la CAF oui. loolu moo taxoon ñu def loolu. d'accord mais tey jii euh, comme ni mu waxee Augustin a bénéficié de la confiance de ses pairs. Mm-hmm. maanaam les présidents de l'instant bobu boobu kenn moo porté woon loolu. Mm-hmm. xam naa nag lu won la woon xam nga. Mm-hmm. Eh, instant bi ñu ngi wax ne Augustin waxatina na du briguer un cinquième mandat. waaw mais au niveau du COMEX am na ñoo xam ni ñu ngi wax ne. moy sen candidat moy sen candidat moom lañ bëgg mu jité est-ce comprendre nga. oui on a vu des sorties quand même. waaw yaa fi wax tamit ko xam euh, euh, ni euh ko melni mari touré hmm xam nga euh, mari Touré tay tamit quoi qu'on puisse dire c'est une personne très légitime. hmm bo ne ni am droit l'adj président fédération bi. c'est vrai. comme yow mii su fekkee am nga club. Mm-hmm. nga laaj président fédération bi. Mm-hmm. parce que lolu taxi mo len ka may. moko permettre bi. képp koo xam ne nga président de club wala club mandaté la lors d'une assemblée générale am nga droit.

Il y a gérer rek mën na nekk sa reflet. Les mhm. comprendre nga. Mhm. tey génération mal ils Malick Touré gérer. Mhm. reflet la parce que au niveau de l'Afrique et même à l'échelle internationale. cette académie n'est une des académies africaines de référence. donc kooku c'est vrai mais nag élection nag dafa am yeneen paramètres yoo xam ne moo euh, euh, des fois proximité de am. voilà, mhm. def coalition bo ni ay la yow bu ñooñu ce sera très difficile yow li nga bëgg nga am donc peut-être euh, na mhm. parce que les présents de ligue ñoom ñoo porté won euh, ou bien euh, le président de la ligue bi xamna ni mo porté won que ne mom mo taxaw wax ne Augustin Senghor fay briguer bu sañoon bu briguer un quatrième mandat. Mm-hmm. ñoñu ñoo nek à la base dañuy waxtaane seen ASC c'est vrai i club autant pour moi. parce que tay ki xamne mo déclarer déclaré mm-hmm. kok moy mooy kilifa Fatick. da tay bu waxtaanee yenn kilifa Fatick yi. ñoñu Thiès waxtaan les clubs de de de Thiès. Mm-hmm. wa Tamba. what are inoculum